may tere sax léegi ñi may xalaatal ci communication nee nañ ma bàyyil di tudd góor gi léegi ci pénc mi parce que nee nañ ma boo ko tuddee rek yàq waxtaan bi waaye dafa am boroom xam-xam buy wax ne nit ku nekk war na am laaj bu muy laaj boppam mooy who will cry yu you bés boo faatoo kan moo lay jooy su fekkee ne sa dund ak sa dee ñoo yem mooy yow moom amoo njëriñ su fekkee ne soo soo tukkee nekk ci kër gi ba ci ak nga tukki kenn du ne waa ana diw donte attaaya rek nga fa nekke woon wala donte fexeel ba am njëriñ boo xamante ni au moins boo tukkee ñu ne absence remarquable et remarquée